ba tey lu mel noonu du aay nga jënd ko jotagoo ca daldi koy jaayaat wàññiwul dara wala ba as aayut bi bay si taxaama ci jaay aw ñam alxardi wa di ab abal ngir yàlla xam la an yastaw fi ci njëkk mu koy ngëpp daa wax nag bu fekkee daa am ñam wuñ la abal ngir yàlla mooy dangaa jaar fee rek loru ci ceeb mbaa pepp mbaa mboq mbaa leneen kooku nangu laa abal ngir yàlla nga xam ne moom jaayu la lam la jox rek nga koy delloo sil dangaa loro rek mu abal la barigo nga war ko delloo sil barigo mbaa mu abal la cinquante kilo nga war ko delloo sil cinquante kilo rek waaye ak jaayante amu ci defal ngir yàlla rek la abal la ngir yàlla ndax dangaa loru kon moom lu mel noonu mën nga koo jaayat te jotagoo ca duñ ko yemalee boo ko jëndoon te jotagoo ca wala ba as ayut bi sharikati ci bokkaale wa tawliyati ak féetale ngay wax méngale wal iqaalit ak xàccal fi taxaami ci ñam wa al makili wa di natt xabla xabli ci njëkk nga moom nga ñamuñ la war a jox nattal la ko jox la ko te joxaguñ la ko du tee bu la neexee ñëw bokkaale ko keneen bokkaale ko keneen mooy nga ne ko nangam kat laa ko jënde foofa léegi joxeel genn wàllu njëkk maa yow nu bokk ko loolu mooy sharikatu féetale gi nag mooy nga ne ko man de jënd naa fee fukki àndaari pepp jotuguma ci nag waaye mën naa la koo féetale lañ ma ko jaay daal mooy ñeenti téeméer boo nangoo nag ma jox la ko yow nga féetewoo ko da nga jox ma ñeenti téeméer loolu mooy tawlee tawlee mooy njëgg nga ko jëndi woon rek nga joxaate ko ko iqaala xàccal nag mooy bi nga waxaalee jaaykat ba mu nangu laa jaay nangam ci ñam laata mu koy natt jox la nga juboo ci mu téye aw ñamam nga téye sa njëkk yow mi nga xam ne mu kàllaf nga boo waxatee sama moroom mu kàllaf yéen waxaale ba jubóore donte joxagula it tutee jaay gi fasu na kon nag boo bëggee bàyyi faaw mu juboo ci bàyyi ga te wan ne bu dee aw ñam nag mu war a jox la bu ngeen ci jubóo rek mën ngeen bàyyi jaayante ga mu téye aw ñamam yow nga téye sa njëkk wakkullu xaq di bay hin bépp fas-fasu jaay aw ijaaret ni wala yooloo ijaara mooy def loo ko fay ko ni ki tabax loo ko fay ko mbaa ñëw loo ko fay ko aw kiraayin wala luye wala mel ne luye aw fas wala luyee oto wala luyee saxaar mbaa dara bi xasarin tam ànd xatar aw xararin wala xarar daa mel ne ñoom ñaar taxulee na sore fii samanin ci ak njëg aw mafmunin mbaa la ñuy jënd aw ajalin mbaa ab ab falaaye joosu kon du dagan falaaye joosu foofu lay daanoo baatu xarar da nga ko dégg lu baree bari ci boo dee jàng buntum njaay waaye rek moo di lu wóora di dañoo bëgg ci wàllu njaay moom jëmmi lañuy jaay ak jëmmi njëggañ cay fay ak jëmmi dele ba lépp rek nekk lu wóor a wóor bu dee wàllu jëflante ci defal ma ma fay la mbaa luye ma sa nangam li itam dañoo bëgg rek lépp wóor daray wóora di daray lu wóora di rek bañ caa am mel ne duñu nangu luy meññ loo xam daa tàmbalee meññ rek wala mu tàmbalee tóor tóor rek di daal di jaay xaat meññet ma te xamuñu ba xam nu muy mujjee wala boog lu ñu sàcc xamuñu dana feeñam du feeñ mbaa lu réer xamuñu ba tey dana feeñam du feeñ yu mel nii mëneesu koo def njëkk lu mel nii mëneesu koo jaay mëneesu koo def njëkk ci dara dele bu wóor nag moom mooy lu mel ne rek ngeen àpp ko ci bàyyam ba tukki bu ñu bisee rek la lay fay te xamuñu kañ la bàyyam di ñu bisee ijaara mooy def loo jëmb ji fay ko mel ne ñaw loo ko mbaa tabax loo ko fay ko day aajowoo ñu leeral bu baax lam bëgg koo ko defal ñu leeral bu baax ba tey lam koy fayee te lam koy fayee nekk lu wóor mu nekk lu wóor a di ba tey luyee itam noonu la boo doon luyee aw fas wala ngay luyee oto mbaa dara itam boo ko bëggee fayee pay goo xam ne gu wóoradi la kenn du ko nangu day aaju woo rek lépp wóor lu ci wóoradi rek ñu gàntu ko lépp loo xam ne su ko def njëkk mbaa mënees su ko jaay rek mënees su koo fayee koy liggéeyloo di ko fay mënees su koo fayee lu yaa sub oto mbaa kër mbaa dara walaaye josul dagan bayul xarari jaayu xarar daa xaw nur ak baamu lu wóoradi moom kenn du nangu ku ko jaay mën na jaay jaam ba daw te xamuñu dina feeñam déet dana du siwaatam déet jamono jamonoy jaam dafa amoon wala nga ne rek ci li nga gën a xam jaay lu ñu sàcc xamuñu ba am daañu ci jotam dit mbaa jaay lu réer xamuñu na feeñam dit lépp bayu xaral la wala bayu shay'in du caa génn jaay dara màcc xool lu ñu réeree te aajowoo la ñuy jaay ñu xam ko bu wér wér wér waaye dama lay jaay rek li nga xam ne moo nekk ci biir kees gi te xamuñu la nekk ca kees ga mbaa li ci biir néew bi te xamuñu la nekk ci biir néew ba déedéet te aajowoo ñu xam njëkk xam la ñuy jënd wér wér wala ila ajalin du jaageen jëm ci ab màcc xool lu ñu réeree da ko xaw baam rek waaye bam ne aw ajalin jee duggoon na ca ne ki ngeen juboo ci bàyyam daa tukki Italie bis bu ñu bisee lay fay lu mel noonu ab ba lañ umpale weesu woon na ko léegi kenn du ko nangu walaaye yoosu lu dagan fil buy waxi ci xeeti jaay yi ak tadlis nëpp ayub wala aju wanaa xam maanaam boo dee jaay dem am dem am sikk sikk soo ci xam faaw da nga koy wax waaye dana araam ngay jaay dara xam ci sikk te waxoo ko dana ko leeral léegi wala xishu du jaageenu jaxase xishu mooy jaxase lu baax ak lu yemaay mel ne jaay lem yokk ca ndox wala jaay meew jar cam ndox ci demee noonu la ngay jaay daa war a sell rek waaye suñoo caarax leneen ngir bëgg mu bari ndax am bénéfice loolu araam la man xashana fa laysa minna wala xilaabat du caageen war ci ay wax wala xajix du caageen war ci ay jëf dañuy bañ war ci wax mooy lu mel ne nga wax ko ci njëkk lu seer a seer loo xam ne nii ah lum la fay fay fay la aw kaañ wu jaduut mel nga ne ko lii de maa ngi ko jëndee fukki junni fekk na ñaari junni ba ñett nga ko jëndee xam nga loolu kon day mel lum la war a fay fay war laa fay xaaj ba juróomi junni ah lu mel noonu maa ngi ko jëndee nangam wax lim bu baree bari te teg ci ne ko mën naa la ci wàññi nangam nag bon ngoo ma jaay la ko lu mel noonu war ciy wax la war ciy jëf nag mooy lu mel ne mu ñëw nga jox ko mu toog mbaa nga jox ko mu naan mbaa nga def nga jëwlenteeg moom noo xam ne daal moom gannaaw bu bu waxaale yow faaw mu jënd ndax na rus rek weesu la fi te jëndut lu mel noonu war ci ay jëf la bokk na ci war ci wax nag lu mel ne xeetu publicité yi ñu def ci rajo yeeg télé yooyu day aajowoo faaw dañuy publicité lañ ciy wax lépp nekk ca waaye bu ñu bëggee mu jar rek ba tax ñu wax ca lu amul rek mu daal nekk lu araam kon jàppal ne ku yëgle am njaay daal na fexe ba lam ciy wax lépp rek nekk lu am wala kitmaanu xuyóob du jaageen nëbb sikk ya da koy firee attat liis ci mu wax léegi moom lay firee kitmaanu xuyóob day araam ngay jaay dara ba noppi xam ci sikk te waxoo ko déedéet loo ci xam ci sikk danga ko war a leeral wala xaltu dani in du jaageenu jaxasi aji yamaay bi jëy din ci aji baax kooku mooy xëccu bi mu waxoon léegi day araam ngay jaay dara ba noppi rax ca lu ci bokkut man ne ngay jaay lu piire rax ca lu piire wut wala ñu wax fals ni mu baree ci xeetu njaayi léegi jaay dara mel ne piir ba la te fekk na moom moom mi koy jaay xam ne du piir ba daa bëgg rek njëkk daa bëgg rek bénéfice wala an yëkkatuma du jaageenu mu nëbb min amri silhat yi ci mbirum mën san yi sama maa loo xam ne isa zakaraho neem tudd na ko karihahoo sib ko al mubtaax aji jënd ja aw kaana wala nekk zikkarahoo tuddam nga ab xasa di gën a wàññi laxoo ñeel ko fi sama ni ci njëgg marchandise bi ngay jaay daal sa ñëw ci nëbb dara dara dara loo xam ne waaye ci nar a jënd bu ko xamee bàyyi bañ a jënd mbaa bu ko xamee njëggam la fayan du ko ca mënati kon daal lépp loo xam ci sikk ci li ngay jaay loo xam ne aj jënd ji moom bu ko xamee dina ko jënd ci mbaa bu dee jënd itam dana wàññi lam ci fayoon kon loola war nga koo leeral wama nibb taaxa ku jënd xabdan ab jaam faawa jadate mu fekk bii ci moom xayban sikk fa la hoo ñeel na ko ay yax bi saxoo mu téye ko wala chey ate di dara la hoo di ko ñeel aw yarut daxoo wala mu xàcc ko waaye ak xosate muy jël sama na xoo njëgam nga ba ñu taalif téer yi moom boobu daa fekk wàllu njaam xew te yaatu lool lool wuteeg suñu jamono ji moo tax da nga dégg ba tàyyi attay jaam yu bare bare bare ndax li wax ñi mooy dangaa jënd ab jaam ñu jaay la ci sikk soo xam ne gannaaw ba nga ko xamee neexu la kon bu la neexee rek nga téye ko noonu te muñ bañ a dellu ci ka la jaayoon téye ko noonu rek bu la neexee nga xàcc ko mooy da ngay dem delloo ko ko mu jox la suñu njëkk te du ko sañ a bañ illaa an yadxulahu ndare bu da koo dugg nag indaxoo fa moom xay bul sikk bu silum si aji yàq fa loxoo kon ñeel na ko an yar jaxa mu dellu bi xiimatil xay bi ci xaymay sikk sa alqadimi say aji njëkk mi ne samane ci njëgg ci njëgg aw yaruddahu wala mu koy xaj wa yarudda te muy delloo maa la nga xam ne naqasahu wàññi na ko ko alxay bu sikk sa indahu fa moom lu may nag ki la jaay jaam bi moom jaayaale na la ci sikk waaye nag jaam bi kat ba mu ñëwee fa yow itam beneen sikk bu yees da ko faa dal kon ñaar sikk ngi ci benn bi dañ la ko cee jaayaale benn bi nag fi yow la ko dale kon nee na bu la neexee nga téye jaam bi te sikk si nga xam ne dañ la ko cee jaayaale ñu seet lu war a toll ci njëgg ñu wàññi la ko ci njëgg bu fekkee mi ngi la jaaye woon jaam bi fukki junni ñu gis ne sikk si nga xam ne moom la ci jaayale moom war naa toll ci ñaari junni kon boo la neexee nga téye rek jaam ba mu delloo la ñaari junni benn sikk bi des moom bu nekkee fi yow la ko dal loola ki la ko jaay yoonam nekku ci bu la neexee nag ba tey nga xaaj ci jaam bi delloo ko ko waaye kon da nga koy remboursé waale mooy da nga koy delloo waale sikk si nga xam ne fi yow la dale jaam ba laata mu ñëw ci yow dalu ko woon niki bu fekkee sikk si fi indaale moom xëy maam mat na ñaari junni sikk si nga xam ne moo ko dal fi yow mat na ab junni kon bu fekkee da ngay xaaj jaam bi di ko delloo da ngay delloowaale kooku ab junni ndax sikk si nga xam ne fi yow la ko dale boo téyee jaam bi nag moom mu delloo la ñaari junni ndax sikk si nga xam ne moom la la ci jaayale wa in radda ndeem xàcc na xabdan ab jaam bi xëy bin sababu sikk wa qad istaxal lahoo te mbir moom jariñoo woon na ko fa laxoo kon ñal na ko xallatuhoo njariñam la nee na buñ la jaayab jaam nga tàmbali ko liggéeyloo mu lay andil njariñ gannaaw ba nga gisee sikk sa nag nga dem xàcc ko kon diir ba nga xam ne booba daa nga ko jariñoo mu lay jox njariñ njariñ loolu lew na la doo delloowaale njariñ la mel ne bi nga jëndee jaam bi laata ngay xam laata ngay xam sikk si jot naa doon jaayal kenn ci bitik ci weer ba mu fay ko pay ga mu yót la ko kon xam nga jot nga caa jariñoo loolu booy xaaj jaam bi di ko delloo du tax ñu wax la ne la di la jaam bi jot a liggéey ak la nga ci jariñoo delloowaale ko déedéet kon nag mel na ne jaam bi mu jox àtte boobu ama tut waaye nag kon bu jëflante woon ci lu bokkut ak jaam it ni ki ci aw nag wala ci fas wala ci lu mel noonu ba tey mel na ne kon àtte bi benn lay doon wal bay xu jaay xalal xiyaar ci kaw xiyaar jaay suñ aji dagan la isa daraba ndeem sadd nañu mooy ndeem sàkk nañu li dalika ñeel loole ajaran ab xariban bi aji jege ilaama ba ci la nga xam ne tux tabar def nattu fii ci moom nattu mooy seetlu tilka sinhatu moomale marchandise aw maa wala loo xam ne takkoon dana nekk fii ci moom almashuratu diisoo daa wax ne bu leen neexee ngeen jaayan njaayum xiyaar mooy ki bëgg a jënd xool ba xam ne lii bëgg na ko ngeen waxaale ba juboo ci njëg goo xam ne itam kii jaay njëg neex na ko waaye ngeen bañ a dogal njaay ma fa saasa li xeeg dele sàngam ndax koo ci xam bëgg ngaa diisoog sa baay mbaa sa mbokk mbaa sa wëlëre mbaa ko xam loola nga mën caa diisoog moom mbaa bu fekkee moom mi jënd marchandise ma daa bëgg a seet ba xam lam soxla ca marchandise ma am na ca amu ca kon ma ngeen sàkk dele boo xam ne ba keneen ci àgg njaay mi dogagut gannaaw bu dele ba jeexee la njaay mi door a dog ne ngay jënd montar bëgg xam ba xam mën naa takk heure bi nga soxla am déet wala ngeen jub ngeen juboo ci nga yor ko ñetti fan muy deleb xiyaar bi ndax nga xamee ci ba xam mën naa takk heure wala déet wala boog bu nga cee diisoog koo xam ne ku xam montar la yu demee noonu moom daal jaayante njaay moo xam dogut daal li fekk waxtu sàngam lay door a dog te diggante bi ku fi neexam deltu gannaaw waaw loolu mooy njaayum xiyaar loolu mënees na ko wala yajuusu du dagan an naqdu teewal njëkk fil xiyaar yi ci xiyaar wala fi xuxdati salaasi du caageen ci xuxday ñetti fan wala fi li mu waa baxaati du caageen du ci jaamu perperloo bichartin ci ab sart bichartin day dellu ci wala yajuusu naqdu maanaam bu ngeen dee jaayante njaayum xiyaar njaay moo xam ne dogagut ndax li fekk sàngam ku ci ne sañ ngaa deltu gannaaw ne bàyyi naa wala am na ci ku am sañ-sañ li fekk boobu ne dellu naa gannaaw lu mel noonu buñ sartee ne faaw da ngay fay fi saasa yow mi bëgg a jënd du baax buñ ca sartee fay rek mu yàqu xam day ñetti fan nag mooy nit day jaay ab jaam ci ñu jàpp ne diirum ñetti fan moom mi jaay moo garanté nga xam lu ci lu ci xew ci jaam bi ci diirum ñetti fan yi rek moom mi doon jaay mooy ñàkk waaye moom mi doon jënd yoonam nekkagu ci lu mel noonu mooy xóotatu salaas lu mel noonu duñ ca sart ne faaw ci jënd day fay fa saasa ndax ndegam moom xamuñu ba xam jaay mi dana dogam du dog kon te wëru caa sart ne faaw dañuy fay li mujj wax nag mooy jaamu tërtërloo jaamu tërtërloo yooyu jamono jamono jaam xewee buñ dee jaay jaam bu jigéen boo xam ne am na taar bu toll ne ku ko masa am daal da nga di joteeg moom ni ñuy joteeg soxna ndax ab taaram mbaa boog amul booba taar sax waaye moom mi koy jaay nee na man daanaa joteeg moom lu mel noonu bi ñu ko dee jaay dañ cee def mu waadaa mooy teg ko ci loxoy ku ñu wóolu ba gis mu am deret su amee deret mooy wane ne ëmbut su ko defee nag ka doon jënd jënd ma door a dog ëmb de sikk su dee rëy dañu bañ ko ko jaayale nit ab jaam kon nag jaam tëtërloo mooy bu ñu teg ci loxoy ku ñu wóolu seet ba xam amu naa ambut bu gisee deret ñu xam ne léegi ambut ka doon jënd am jëndam door a wéy bu gisul deret na ñu xam ne kon daa ambu moom mu deltu gannaaw lu mel noonu nag buñ ca sarte ne faaw dañuy fay rek mu yàqu ndax loolu xamuñu ba xam li wéy la am du li wéy wan nafxat dund ba fii daalika ci loolee wa damaanu ak gàddu ga xalal baayi war na aji jaay ja bu dee njaayum xiyaar mais bu dee xama dee ñetti fan ji xama dañ koy xama da rek waaye mooy responsabilité wala gàddu wala mu waa baxa bi nga wax léegi ñoo yemoo lu ci mën doon ki nga xam ne moom moom yëf ya moo war a dundal te moo garanté nga xam ne bu fa deexoon ba dara sikki ci it moom mi moomoon rek ba tey mooy amee ngaañ la ndax ki jënd moom ñëwagul ci moomeelam dund ba it moom la war amul werante wa innama yu tawaadahu naka def na tërtërloo li istibraay ngir laablu aljaariyatu jébéer ba allati ba nga xam ne lil firaash yi ñeel na lal ba fil axla bi ci la gën a bari awil lati wala jébéer ba nga xam ne aqarra saxal na albaayu aji jaay ja di waxta ihaa ci ak laalam li bari wax sax far na ñëw maanaam jébéer bi ñuy jaay ci tërtërloo mooy teg ko ci loxoy ku ñu wóolu ba mu am deret boo ne ni amut mooy jébéer boo xam ne dafa am taar boo xam ne daal li ci ëpp commença moom da nga ko def ne soxna di joteeg moom mbaa moom amul booba taar waaye ki koy jaay nee na man de ci dëgg-dëgg jote woon na maag moom nga xam ne xamuñu ëmb na amut lu mel noonu moom kon dañ ko teg ci loxoy ku ñu wóolu ñu xam ba xam ëmb na wala amut wa in kaan ak doonte nekkoon wax seen di am kies loolu daa dellu ci jébéer bi nga xam ne ki koy jaay nee na man daan naa joteeg moom doonte moom dafa rafetul sax mooy am kies dafa ñaaw waaye moom neen daana joteeg moom rek kon daañu ko tërtërloo wala tajoosul ragan albara ak dañtalu dina xam li ci ëmb ba illaa xam lan dara ëmb zahirin bi aji fés dañtalu ci ëmb ba mooy yow miy jaay nga wax kay jënd ne ko lu yàgg-yàgg bu ëmbee itam doo ko sañ xàcc di ko delloo si loolu nag am na teqale ci bu dee jébbéer boo xam ne dafa am taar ba nga xam ne ku ko masaa moom da nga ko soxna woo moom du dagan boroom di ko jaay di ci wax loola de bu fekkee ne dafa nekk ku ñaaw moom dana dagan moom mi koy jaay mu dañtalu ci ëmb ba ne ko lu yàgg-yàgg bu ëmbee itam doomu ko delloo sil li waral lool nag mooy ku rafet ki am taar ëmb ga sikk la ca soo xam ne day yàq njëgam te ku ñaaw ko nag mu ëmb ga ca dëgg-dëgg xéewal la ca ka koy jënd moom ka koy jënd moom ndegam gisu ci ab taar kon am bëgg a xéewal lay doon ci moom loolu nag moo tax ñu nangu dentalu ci ku ñaaw ki te nanguwuñ dentalu ci ëmb ba ca ku taaru kaa lu may nag mu ëmb ëmb bu fés nga ne ko mi ngi nii kat boo ko jëndee xam nga ne lu ëmb nga jënd te kon am bis laa neex gannaaw bi nag kon doo ko sa nga xàcc loolu kon moom leer na wal balaa atu dentalu fi raqiqi ci jaam ya jaayisatun aji dagan la mi maac lépp loo xam ne lam yaalam xamu ko albaayu aji jaay ja li nga njëkk a xam nag mooy dañtalu dëgg-dëgg mooy dama lay jaay waaye boo ci gisee sikki itam kat doon du ma nangu nga xàcc doo ma ko delloo sil moo la ko see jaay rek noppi naa ci loolu jàppal ne yoon da koy bañ ci lépp lépp lépp lépp loo jaay nit rek bu ci gisee sikk gannaaw ba sañ ñëw xàcc ko wala moom mooy li wér mu des nag jaam jaam rek lañ ci maye ci yooyu jamono booy jaay jaam nga dogu ci moom ne ko lu yàgg-yàgg kat moo la ko xosee jaay dooma ko delloo sil waaye moom dañ caa sart dañuy sart xamoo ca benn sikk ba noppi di ko nëbbu muy benn ñaar mooy yàgg na fi yàggaay boo xam ne bu amul sikk nga war koo xam waaw bu fekkee sart yi daje na ci moom nga xam ne yàgg na fi yow te xamoo ca benn benn sikk te yàggaay ba àgg na ci yàggaayu moom bu amoon rek nga war koo xam ñaar bayit mooy xamoo ca benn sikk ba noppi di ko nëbbu bu loolu amee moom si ngaa juboo moom ne ko lu yàgg-yàgg kat moo la ko xosee jaay dooma ko delloo si waaye boo nekk xawma ci benn sikk gannaaw ba sey dëkk doone ah day wax rek waaye xamal na ci sik sàngam de si loolu waaye wax de xamal na ko kooku du tee waaja sañ a xàcc dental googu des ko faale wala yu farraqu deful teqale benn ummi diggante ndey wa waladiha ak doomam ja fil bay ci jaay ga xarta yutqiram ba te mu foqee jamono yi jaam amee duy nangu nga jaay jaam bu jigéen boo xam ne daa ànd ak doomam nga bëgg leen teqale jaay rek ndey ji bàyyi doom ja mbaa jaay doom ja rek bàyyi ndey ja daal leen tàggale loolu lañ koy aaye bañu ko nangu daal doom ji day sax ay bëñ ba bëñ yooye rot ba mu saxaat yeneen waaw loolu mu ne day foq daal mooy day sax yi bëñ ba bëñ yooye rot ba mu saxaat yeneen daal waaw kay su boobaa nag nga leen mën a teqale ci jaay waaye bu dul loolu man nga leen a jaay kenn rek kenn moo mëndoo yaar yëpp ñu bañ a tàggoo waaye nag nga tàggale leen ci jaay jaay kee ndey ji jaay këli doom ji ñu tàqali ko te fekkul mu àgg woo moom dañ koy araamal wa kullu bayhin gépp jaay fasidin guy aji yàqu fa damaanu foo gàddoom nga minal bàyyi tukkee na ci aji jaay ja neen nag saa yuñ jaayante jaayante moo xam ne yoon nee na baaxut nag dañuy jàpp ne aj jënd ji moomagul dara aj jaay ji ba léegi moom moom nga xam lu ci xew rek yëfuma yàqu bu sànk woon sax moom ma doon jaay moo sànkule waaye moom mi jënd moom ndegam yoon nee na jaay mi baaxut te déewu ko ci loxoy ki doon jaay ba tey mi ngi ci loxoy kiy jaay rek kon lu ci xew rek moom la ci xewal biñ ko sàccee mbaa mu lëkk mbaa mu réer lépp rek moom mi doon jaay mooy ñàkk waaye nag bul fàtte ne aj jënd jëlagu ko te yoon nee na njaay bi baaxut fa in xabadaxoo ndéem ngëm na ko al mubtaax aji jënd ja fa zamaanuhoo kon gàddoom nga nal mubtaax yi tukkee na ci aji jënd ja min yow mi qablihi tàmbalee ci bisub ngëmam nga su fekkee ne nag njaayante ga moom baaxut waaye nag aji jënd ci xës na ko yóbbu ba noppi yóbbu gëm ko yóbbu taxagul delloo gi wees waaye nag diggante boobee bu fekkee ne dara xew na ca day jàpp ne kon moo ko garanté moo aji jënd ji waaye nag daañu leeral léegi ne bu fekkee ne delloo gi weesut faaw da koy delloo ki ko jaayoon te kooku delloo ko njëgam li ñu njëkk a jàpp mooy saa yu ñaari mukallaf yi jaayante jaayante goo xam ne yoon nee na baaxut ndax am na sart bu mu ne woon na ca am te amu ca mbaa am na lu mu ne woon bu mu ca am te mu am ca kon dañuy jàpp ne ba tey ki doon jaay moom moom la mu doon jaay ba tey ka doon jënd ba tey njëgam rek la moom. li wax léegi nag mooy su fekkee ne ka doon jënd xës na yóbbu loolee mu doon jënd ñàkk a baaxu njaay ma. du tee moom yor gam ko yor tax na mu garanté ko teewul nag daan leeral léegi bu ko waree delloo ndax rawagut dana ko delloo ak bu ko wërta delloo ñàkk baaxuk njaayante googee nag day ñaari xaaj ndax léeg-léeg day am ñàkk baax goo xam ne boroom xam-xam yépp ñoo ci maase am ñàkk baax goo xam ne ñëpp maasi wuñ ci am nañu ne jaayante ga baax na su fekkee ne nag delloo nga xas ne wees nga xam ne ka jëndoon day téye la mu jëndoon nu muy defante ka ko jaayoon nag am na wuute bu dee ci jaayante ga nga xam ne ñëpp maasi woon na ci ne baaxut kon moom dañu wàcc njëg ñu waxante woon te seet ñi nga xam ne ñoo xam loola ñu estimer ko maanaam ñu xayma ko lu ñu wax rek jëndkat bi jox loola jaaykat ba tañ bàyyi njëg gañ jëflante woon duñ ko faaleeti bu fekkee ne nag ñàkk baax mu njaay ga ñëpp maasi wu ci am nañu nangu baax mu njaay ga kon moom dagam delloo ga wees na dañ koy wax ne ko wéy leen ci njëg ga ngeen jëflante woon rek nga xam ne ko mooy fa in xaala ndeem soppiku na suuquhoo marseem ba aw taxayara wala mu soppiku fii badanihi ci yaramam wa fa alayhi kon war na ko qiimatuhoo xaymaam yow ma qabdihi ci bisub ngëbam ga wala yarudduhoo te du ko delloo mooy du ko xàcc wa inkaana ndem nekk na mimma di bokk ci la nga xam ne yuusanu def na ko peese aw yukaalu wala defi ko nat fal yarudda kon na delloo mislahoo am kemam wala yu fiitu du rawale arribaaxa kër ya xawaalatul aswaaqi soppikuk marché ya dama far tegale baat yi noonu rek jox ko menn maana bu gën laa noppal yow miy jàng xam nga dañoo waxoon ne su fekkee ne delloo ga weesut ndegam yoon nee na jaayante gi baaxut kon dañuy delloo njaay ma ñu delloo ki doon jënd njëgam léegi nag bu fekkee delloo ga wees na moo mat a xam lim njëkk a tàmbalee nag mooy su fekkee ne jëmmi lañ jaayante woon dem na ba njëgg yokku mbaa mu wàññiku loolu dana ko weesale mooy dana weesale delloo ga ba tey bu fekkee ne jëmm ji daa soppi ko ci yaram wa mooy mel dafa suuroon léegi mu yooy mbaa dafa yooyoon léegi mu suur mbaa dafa ndaw woon léegi mu mage ba tey kon delloo ga wees na li mu wax ne fa alayhi qiimatuhu wa yawma qabdihi mooy li ma doon leeral léegi mooy su fekkee ne ñàkk baaxuk jaay ga boroom xam-xam yépp ci marché te delloo gi wees na dañu wax ne kon njëggañ waxante woon jàppatuñ ko dañ koy teg fële dañ seet nag ñoom ñi nga xam ne ñoo xam loola ñu seet bis bi jëndkat bi jëlee njaay ma ca ka doon jaay booba fu walëram toll woon rek maanaam fu xayma ja toll woon rek loola la jëndkat bay fay waaye njëggañ waxante woon moom léegi faalee tuñu ko su fekkee nag lam ko jaayoon day mitli yu mitli yu mooy lu ñuy peese mbaa lu ñuy nat mbaa lu ñuy wàññi ni ki neen ak i xaal des na ko di wàññi lu mel noonu moom su fekkee dem na ba njëgg yokk mbaa mu wàññi ko it du tee rek dañ koy wax ne ko yow daal delloo ko lim la jaayoon rek nga xam ne bu fekkee ne jëmbi lam peese woon jox ko mbaa lam na tan jox ko mbaa la waññi woon jox ko ma nga fa da koy delloo jëmm ja bu fekkee nag jëmm ji nekku fa nag mu dem wuti fa ñuy jaayee lu toll noona daal di koy jox bu ko defee jaaykat ba delloo ko njëgam nga xam ne kon lu ñuy peese mbaa lu ñu natt mbaa lu ñuy wàññi moom dem ba njëkk a yokk mbaa mu wàññiku tutee ñu tebbi njaay ma delloo ka doon jaay am njaayam delloo aji jënd ja njëgam duñ ca seet ne boobaak léegi njëgg yokku na ca loola mbaa wàññiku na ca lim ci tegit mooy bu dee lu aju ci mbirum suuf lu aju ci njaayam te suuf moom ñu dema dem rekk ba mu gën faa jafe mbaa mu gën faa yomb ba tey moom it du tee ñu teb bi jaayante ga duñu seet rek ne boobaak léegi bañ ko jëflantee njëgu suuf yokku na fi mbaa wàññiku na fi déedéet du tee rek ñu ne ko ndegam jaayante gi baaxut delloo ko suufam mu delloo la sa njëkk kon ci takk-takk suuf ak xeetu kër yooyu moom ak lu ñuy peese mbaa ñu koy natt mbaa ñu koy wàññi ñu gis rek ne prix bi yokk na fa boobaak léegi mbaa prix bañ jëflante woon wàññiku na fi boobaak léegi du tax delloo ga wees yey tax nag delloo njaay ma boroom di wees ab lim la maanaam ay yëf yëf la moom i taalif da cee jot a wax yi rek waaye boo demee ci yeneen téere yi daañu ca wàññee wàññee wàññi niki bu dee suuf mu tabax ca mbaalam ca fekkan mu toj ko ak yeneen ak yeneen waaye nag moom fii rek la ci jot a yam kon nag nga seetlu ne bu ñu jëflantee ci wàllu jaay jëflante goo xam ne yoon nee na awutu yoon bañ jëflante ba àggal tam day mel ne rek ka doon jaay ba léegi lam doon jaay génnul ci moomeelam ka doon jënd it njëgam génnul ci moomeelam mu des nag bu fekkoon ne nañ jaayante yoon nee na baax na bu fekkee nañ jaayante yoon nee na baax na moom bu ñuy waxante ba juboo rek mu daal di mel ne ki doon jënd moom na lam doon jënd ka doon jaay moom na njëgg waaye nag moom daa bokkut ak garanté moom mi nga xam ne mooy jaay bu fekkee la muy jaay day lu ñuy peese mbaa ñu koy natt mbaa ñu koy wàññi li feeg mu koy peese mbaa mu natt ko mbaa mu wàññi ko ba jébbal ko kay jënd ak garanté am jóogu ca maanaam ba léegi moo ko garanté nga xam ne tey boo ko doon jaay lu ñuy xel ni ki diw mbaa pétrole nga xel rek mu tuuru yow mi jaay séef yaa ñàkk yaa ñàkk séef jàppal ne kon lu ñu natt mbaa lu ñu koy peese mbaa ñu koy wàññi moom balaa sa jaana wàcc yow mi jaay nga natt ko mbaa nga peese ko mbaa nga wàññi ko ba jébbal ko kay jënd bu xasee jébbal nag léegi boobu la koy door a garanté waaye ba kere mu koy ngëb ba kere nga koy jébbal mu ngëb ko rek yow mi jaay yaa garanté wala yejuusu du dagan salafun ab leb yejuru bob day ñoddi man faxatan njariñ man nga ne leb man nga ne leble dafa tudd baatub salaf te jublu ci alxard alxard ngir yàlla rek koy waral mooy kooka am na loo xam loro na ca aajo woon na ko nga abal ko rek ngir yàlla nga xam ne lu toll noona la lay delloo sil niki pepp jafe na mbaa ceeb jafe na mbaa leneen nga jox ko loo xam ne da lay delloo sil lu toll noona képp loolu luñ sopp la waaye nag ngir yàlla doo nga tax ñu koy def duñ nangu yow mi nga xam ne yaa koy def nga am ca benn benn njariñ niki nga di ko abal pepp mu larax